gars yi nee nañ bu baax bi kon Amadou ñu jox la kàddu c'est pas les marabouts c'est pas les marabouts c'est pas les marabouts c'est pas les marabouts c'est pas les marabouts jërëjëf jërëjëf mbooloo mi asalaamaaleykum waa Thiès dañuy njëkkee sunu kàddu ci sant yàlla mi nga xam ni moo ñu may ñu mën a taxaw fii di wax ku xalaat daaw ci heure bii ci lan lañ nekkoon nga xam ni yàlla rek moo mën te moom mi nga xamante ni ba mu mettee dafa ni damay xool lan la leen projet bi jaral ñu ne ñun de wéet nañu ñu rey sunuy militant tëj sunuy militant exilé sunuy militant tas sunu parti tëj sunuy kilifa

ñu nekk ci ñu nekk ci situation yi di gëna metti yàlla xam ni militant Pastef sympathisant Pastef ak peuple sénégalais pare na pour rupture systémique jële fi système bi ñu doon néewal doole yàlla ñëw ak miracle ñu am ay président yoo xam ne ci kaso ba lañ leen génnee moo premier ministre ñu conquérir le pays mu nekk une première en Afrique waaye bala ñoo commencé dañoo ameel njukkal les militants de Thiès de Pastef Thiès yi nga xam ni ñoom ñoo ñu wóolu jiital ñu fii tey jii ñu ci njëkkee la ministre Birame Souleye Diop mu mel ni démb ci man bi ma président Sonko di woo ni ma dinaa la boole ak Birame Souleye Diop ngeen taxawal Pastef Thiès mu nekk un long chemin. boo xam ni tous les coordonnateurs toutes les sections du département moom ñoo liggéey lii tey ba nga xam ni buñ ñu woowee huit heures nañu dañuy campagne ngeen mën a feesal boulevard bi. ñuy remercier tous nos alliés di remercier le maire de la ville Babacar Diop le maire de Thiès Est maître Ousmane Diagne le maire de Thiès Nord Mouhamadou Diakhaté di nuyu sunu alliés yi. ñu nga xam ni ñoom ñoo décidé ànd ak ñun yàgg ànd ak ñun bu nu maa nag di def discours bañ leen a présenter équipe bi nga xam ni ñoom lañ àndal ndax président Ousmane Sonko dafa jël toutes les catégories socio-professionnelles mu jële leen Thiès ni dama bëgg ngeen dem teewal leen ci assemblée bi may woo la responsable des femmes de Thiès ñu investir ko ci liste nationale muy Marema Ndiaye Marema may woo may woo la Benjamin nekk étudiante wara dem teewal ndaw yi muy Fatma Gueye mi teewal waa Touba doyen Fallou maa lay ziar bu baax di woo Anne Marie Yacine mu jóge ci Fandène di woo ñaaña jeeju bu Cees Nord diwoo woo soxna jaara ndooy di soxna Zahra di woo soxna Sali Cissé bu cees Ouest di woo l'un des fondateurs de Pastef Thiès yéen ñëpp ngeen xam ko muy monsieur le maire wala l'ex maire adjoint monsieur Amadou Dia di wax nii bu ñu nekkee ay ndaw dañoo booleek mag yoo xam ni ñoo ñuy tette di woo le doyen Ablaye Faye mu représenté tout la Diobass di woo le coordonnateur Cheikh Ciss di woo monsieur Mouhamed Sall mu MRDS nga xam ni ñii ñëpp ñoo nekk ci Thiès di woo aussi ñëw na est-ce de Khombole le mouvement des transporteurs sëñ Birane Yeksil di représenter les transporteurs ngen gis ni ñii ñëpp Mbaye Dia si c'est bon abdu ah Abdou Sène Seck Faye Sañ Sañ Sañ Sañ sëñ Abdou sëñ Abdou Yeksil donc ñi lañu président Ousmane Sonko booleel pour ñu dem à la conquête du département ñuy wax ni ce fi un long chemin ba ñu yegg si fii et il faut ñu mériter seen confiance. président Ousmane Sonko Thiès dafa yàgga sonn ci politique Thiès le pays le prix du sang fay na ko ci politique. ndax dafa nekk dëkk boo xam ni nguur gu bees gu fi ñëw pour jubba pour jubal pour ju euh, bañ a jubal Thiès dafa mës a résister. tous les hommes politiques bu nguur ñëwee rek Thiès fal opposant Thiès fal opposant Thiès di fal opposant président successif yi daal ni bu ñu développé Thiès dañuy daanu cees nekk ci radicalité politique depuis 30 ans ñun ñëpp ñu toog seetaan nguur yëpp daal ginnaaw Thiès dëkku bañkat la dañ leen ko nasaxal économiquement ñu toog ñun ñëpp di seetaan li ñu amoon ci fleuron muy les chemins de fer. ñu toog ñu dépasé ko wanteer ko tas tas le symbole de Thiès mu nas mu naax saay ñu pare dindi le bassin industriel le tissu industriel ak les bassins d'emploi muy NSTS bii bu ñu amoon ba nga xam ni tey président Sonko Thiès mooy la ville la région l'une des régions les plus riches du Sénégal ku tabax Thiès moo la jox ciment zircon bi Thiès la ko yàlla bàyyi baaxee ñun ñoo am géej gi di jaay di jox jën waa senegal miin yi Cees la ñu nekk yàlla baaxe ñu pétrole fee ci Kayaar booy xool richesse yi nga xam ni moo nekk Cees da ngay defoon ni ñu nag Qatar ñoo waroon tolloo PIB ñoo gën a ndóol tey ci senegal loolu moo tax président Sonko député yii nga fal fii duñu ay député yu dem di tàccu ak di nelaw dañoo war a porter un projet économique dañoo war a suqali cees ñu génn ci coowal politique ndax cees yàgg naa xeexal ay opposants ba ñu paree ñaata ministre lañ am depuis 2012 ak DG ci Thiès tey la dëkk bi gën a ndóol ñu ne nag li ñu liggéeyoon présidentielle buñ ko yàq système bi li koy jeexal ñetti mbir la bi gënoon a am solo mooy ñu dagg bopp bi waaye ñu ne dañoo bëgg a jebbiwaat ñu ne leen déedéet. ñu def ñaari pôle ci opposition Macky Sall la ki ñoñam déggul Sénégal daa xiif daa mar moo tax mu bëgg ñëwaat nee nañ ñoom ak ñi mu àndal ak Amadou Ba et nee nañ dañoo bëgg alal ji ñu sàcc ci réew mi ñu xam ni yoon war na leen a tongal fu ñu làqatu mu génn leen ñu ne dañuy dellu si ci ñi ñu sàccoon pour ñu làq leen kenn mësul gis loolu ci àddina sàcc boo xam ni day dem ci kër kamu sàcc ni ko nëbb ma police bañ maa jàpp loolu la ñuy woo ñoo lànk bu ñu joxee alal duñu ko jël ñoo ko lànk kenn du sàcc suñu alal ba pare ñëw ni day ngay laaj suñuy voix pour ñu jox la immunité nga mën a am impunité mën a rees lekk xaalis bi mu rees du rees mukk te dëkku bañkat bii di Thiès fii lañ koy njëkkee ñi si des ni ñoom président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bu ñu nekkee ci réew mi ak seen référentiel vision 2050 ñoom pare nañ ci carrière politique ñu nekkoon nañ leen outil majorité pour duñu voter budget duñu fay salaire ñu dindi subvention yi ñu def ci énergie ak produit yi ndax réew mi nërmeelu lii mooy projet opposition est-ce que war ngeen a bàyyi opposition bii di dem assemblée ba fay am majorité ñun ay député lañ yoo xam ni bu ñu toogee suñu kilifa président Ousmane Sonko ak ministre yi nekk suñu ginnaaw di liggéey liggéey bu am solo dañ leen bëgg a wax ban yoon lañuy ñuy jaar pour suqali Thiès dama ni Thiès dafa war a am hôpital bu bees ñëpp xam nañ ko hôpital régional mënatul yore Thiès xam nañ ni raay bi dafa war a dekkiwaat fii si Thiès xam nañ ni sunu mbuurkaat bii nga xam ni moo ñu dese ñun amatuñu armeel ñun booy dugg ci Thiès amuñu fu ñu tuur suñuy mbalit xam ngeen ni fii mënul nekk décharge xam ngeen ni soxla nañ ay lycée yu bees xam nañ ni Thiès dafa bëri ay quartier yoo xam ni kenn lotiru ko quartier yooyu yëpp foog ñu prévoir ca mbuurkaat bee fu ñuy res fu ñuy reloger ñi nga xamante ni bu ñuy restructurer carte bi foog ñoom ñu jóge fa moo tax président Sonko ak Jomaay bi nga xam ni bi ñu ñëwee seen première décision moo doon sauver bu buñ ñu gën a gore nit ki du ñëw pour jàppale sa dëkk nga naan da ngay may lu serees ko cent voix APR ak Amadou Ba ak consort ci dëkk bi ñu ngi leen di ñaan fii laay terminé projet bi ñu am du am majorité assemblée dañoo war a déjjati benn système maa ngi koy wax boot bi dagg na mais day jebbiwaat pour mu bañ a jebbi nag bu ñu dem ñoom assemblée foog ñu nangu ci ñoom assamble bi système bi mën fee jóge ci lu gën a gaaw yàlla nañu yàlla may campagne yu jàmm nangeen ko tas ñëpp xam ko sunu but du élire ñii mooy élire suffisamment de monde pour ña nekk ca liste nationale ba loo bokk Pastef loo sori sori ñu fal la ba ñii ilaa yow mi diin dootuñu taxaw Sénégal maa ngi leen di remercier di leen gërëm jërë ngeen jëf merci beaucoup. merci beaucoup. Eh, soxna Mbène ñu ngi lay ziar bu baax docteur ziar nañ leen ah, ah merci beaucoup mbokk yi xam ngeen ne ñoo ngi ci mois d' octobre tax na ci liggéey bi nga xamante ne ba tey Pastef bi mu koy def sax. jotagul ci li nga xamante ne moom mooy nguur tey jii nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy def VMP rose ngir dem jàppale jigéen ñi ci test yi am na fi ñoom ñooy camion blindé boobu nga xamante ne yéen a ngi koy gis dirigé par le docteur Mor Diagne kon loolu également dañ koy rafetlu les transporteurs également ñoom également ñëw nañu ñi ngi fii ñoo ngi koy rafetlu waa Pastef Tivaouane on nous annonce également que ñoom tamit ñi ngi fi léegi nag dañ leen bàyyi ñu jël photo ak tête de liste nationale également ñoo may xamal ne ñu ngi fi kon les investis dañuy jël photo ak la tête de liste nationale Ousmane Sonko. kon mbokk yi dafa am lu am solo loo xamante ne bi nga xamante ne préparé nañu pour def li nga xamante ne moom mooy suñu campagne législative moom lañ ñu woo te am ci loo xam ne GPS da ngeen a yàkkamti bu ngeen ma yàqalul rek maa ngi ñëw ci yéen maa ngi ñëw ci yéen may wax ne parce que dafa am lu am solo loo xam ne faw ñu wax leen ko dañoo bëgg bu président Ousmane Sonko jëlee kàddu ba pare képp kenn ci yéen boo duggee sa koñ kër boo dugg nga mën a wax as ci li nga xamante ne moom mooy référentiel 2050 parce que gis ngeen mbokk yi faw askan wi ngeen jël référentiel bi def ko seen moomeel dégg ko xam ko ba mën koo défendre saa su ne parce que loolu mooy yoon wi nga xamante ne fa la ñuy jaar ngir suqali Sénégal te référentiel boobu quatre axes la quatre axes yooyu laa leen di jox bu ma leen ko joxee ba pare nag jël micro jox ko kilifa gi nga xamante ne sans doute mbooloo mi yëpp moom la ñuy déglu quatre actions yi ban la moo jëm ci li nga xamante ne mooy agenda de transformation nationale bi njëkk mooy une économie compétitive boo nee économie compétitive nag mooy koom goo xamante ne Sénégal saa su ne mën na am koom goo xamante ne mën na jëm ca kanam mën na ñoo compétir seen biir même à l'international nga jóge foofu dem ci li nga xamante ne moom mooy aménagement et développement durable Amadou Ba mi ngi koy wax jafe-jafe yi nga xamante ne Thiès amoon na ko ci wàllu dëkkuwaay te muy continuer di ko am te ñii bi ñu ñëwee moom président Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moom mooy le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu def ci liggéey bi mucc ayib donc loolu également c'est important il fallait que ñu wax leen ko je dis que mbuurkat kese mbuurkat képp suffit sa dossier kese doyoon na sëkk ngir ñu doxalaat kàddu gi ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko ngir am majorité à l'Assemblée nationale waaye boo jógee foofu nga dem fële nga xamante ne moom mooy capital humain qualité et équité sociale Amadou Ba am na lu mu ci wax ci wàllum santé ñu am ay infrastructures yu doy ci wàllu la formation de la jeunesse ñu am te autant d' école de formation loolu mbir la moo xamante ne day permettre à ce que jeunes yi ñu am une bonne formation mais aussi ñu am une adéquation entre la formation et le monde de l' emploi ba nga xamante ne jeune bi bu génnee fañ koy former il y aura assez d' compétitive boo xamante dina mën a dugg parce que ñu bëri ci yéen bu ñu leen former ba pare dañuy am problème fan la ñuy dugg ngir liggéey kon formation